waaw accident bi de xam nga man Tivaouane laa demoon quoi yaa dégg ma demee Tivaouane noonu xam nga après benn gaan fekk ma fa quoi bu ma fekkee mënu ma ah, ah say Aliou Kandé kenn kenn mënu faa jaar quoi daa am benn bis ak benn camion bu jaaxarloo fa face à face. Mhm. waaw mais li métti na ko uh-huh. a ñaata mort lañu wax. yaa isu saa isu ma ay 16 xaw ma. 16 mort waaw wax kay. Mhm. dafa métti quoi. mais dañoo dañoo dañoo euh, dañoo mbëkkante. waaw ah, kii bi ah frigo la quoi. Ah. Ndar la jógee. camion bi frigo la ko ndar la jógee. bis bi bis bi ko ren ndar quoi. paal paal ci gàmmu gi. waaw waaw si gàmmu gi waaw. waaw léegi bi ñu demee xam naa kii dafa yàkkamte pour jaay pour pour jaay jën yi mu yor. kii dem quoi. la yàlla def xama camion moo génn troisième position jaaxaroog bis face à face. xam loolu dafa métti quoi il sëbër il faut ñu daw ndànk. waaw ndax maanaam lii gàmmu la rek. day weesu ko il faut ñu daw ndànk il faut ñu jàppalante. te dimbale doomu aadama yi quoi. ndax at na amul solo ko mm-hmm. waaw loolu moo gën rafet quoi. Cheikh nan nga tudd. man laa tudd. waaw